salaamaaleykum waaw comme dangeen a jaaxle nag te ba pare gaay le jaaxle leen luy dindi jaaxle nga julli ndox moo koy fondement mooy ndox mi ngay jàppe dana dem ba nekk ñeenti ràkka waaye bu ñu demee sax ba ñeenti raaka yi jeex ñaari sujjóot yu yu mujj yi jeex ngelaw a koy yàq ngelawal moo koy yàq walla waaw bu ngelawal amee nag jàppaat julliwaat gaay nag lu wax ñu ne déedéet nañ julliwaat rek jarul jàppaat téere yi ne déedéet ndoxo koy defar ngelaw koy yàq ngelaw lim tuutee da koy yàq kon jàppaat julliwaat lan mooy jàppaat julliwaat parrainage constitutionnelaat ba mu ba mu lépp am parce que am na ñu génn tawaruñoo génn te yàlla wax na ci alxuraan ne fii samuumin wa xamimin wa zillin min yaxmumin laa baaridin wala karimin bu ci karim ba bokkul du baax man nak ñaara ma teunk ben bi extrémisme ci la judd ci la majarni ci lay dé bu ñu jaaré ni ma jaar ni man su fekkee da ngeen ma laaj dat passation passation de service bi nga fu mars 2027 li tax ma wax ko godoron bu yàqoo duñ ko defaraat ci ñaari fan parce que diggante 2021 ak tey depuis mars 2021 ak tey ñi ngi yàq république di dën di dëbb euh, euh, institution yi di saaga sëriñ si te gis ngeen bu ngeen sàgganee ba ñàkk ci dialogue bii ñun sëriñ si ñoo leen di àtte xaw ma tuwaale yi doonam tiwaawoonam xawlax mais da ngeen di ñëw ñu àtte leen waaw ñun la sëñ bi le président doon wax ne am na force yu organisé force yu organisé pas pasol nga am benn xalif général bu fukki xalif général wootee rek ne lii la muy lii muy jeex xàkkay ah, loolu la de parce que yéen politique yi ba ngeen fi nekkee da ngeen ñëw box jàllale ñu fan ma ñu ñëw fu ma jaar gendarme ngeen ma du fii sama romb doom ñoo romb la way monsieur ministre xam nga ñu ñu bàyyi gannaaw ñu nit mën nañ ko yor ndax Iran yor nañ ko ñu nga yor bombe nucléaire Maroc ko yor ñëpp ay serigne ak serif li am solo nak moy président yaqaluñ la réew mi lañ yaqal te réew mi dang ko jox sa parole sa bakan yaay premier soldat yaay premier soldat ma ne boo ñemewutoon fétal kon casamance ba mi ngi tak waaw parce que jo doon xeex yaa leen jox nga naay fital leen ñu ne ñëwewuñu leen fii nga ne dem leen fa am na yow sax da nga da ngaa yoo dugg ci front bi te kenn xamu ko waaw am na waaw euh, dama ne bu doon tukulóor ma leen màkki dogata dogata dogata xaamaay dogata waaw waaw kon nag euh, mbokk yi mbokk yi mbokk yi Seydina Aliyu dey ba waa ji ñëwee daf ko ameel bor fayu ko bañ ko ooyee tribunal dafa ñëw toog kon nag su fekkee ne am na ay ñu ñuy liggéey ci tribunal buñ leen tuumaalee Abdou Mbow naa xam ndax daf leen daf leen di setalam daf leen di ñàkk setal waaw bu leen setalee ñu ne ko mbow noonu la ah bu leen setalul nag ku setul doo mën a atte xanaa lu lu raw loolu chauffeuru président bi képp chauffeur bi la wax ni léegi bu ñu gars yi filmé woon ko ñoo ne ji nga mi ngi nii waa ji di ko jox un million ne na ko dimbali pour mu ñëw nga jox ko audience ci saa si chauffeur bi dañ koy dàq dootul ndawalal président wala waaw dem chauffeur moo ta dawal bu setul wax wala nag koo xam ne boo attee fini yëf yi daal réew mi jàmm ji nga xam ne moom lañ bëgg a yàq bëgg a profiter des périodes vides entre la entre une passation de service et une prise de service c'est là où il y a le danger ji nga doom xam nga fu muy dee buy juddu fuy juddu ni nga koy génnee buñ ko génnee du waax rek du juddu wala du ngeew te bu ngeewul dara du baax affaire bi foofu la yëf nekk yow président Macky mën nga ma seede am nga fi fukki at ak ñaar benn yoon laa ma sa toog yow audience ci te Mohamed Dionne mi moo ko indi boobu ba léegi ñaarul te bu bu loolu nga ne ma recevoir na naa nga mi yoon te nit ñi foog nañ ne euh, booy jàpp julli sax nag ma laaj ndax ma maa ngi jàpp te ñëw pour boo ma jotul te loolu amul te te yow xam nga ndax man da nga may jox daraam déet xam nga ko xam naa ko man sax maa daan joxe ah kay maa joxe mi ngi nii maa daan joxe man waxuma dara pour sama bopp waaye Sénégal gii man toog naa euh, euh, gouvernement États-Unis ooma ndaw suñu wax jindaay ci euh, département d'État ñu ne ma dañ lay nommé ambassadeur itinérant ma bañ Zalmay Khalil Zada poste bi ko jox man bi ma bañee lañ ko ko jox waaw ah, ku mën a am nekk ambassadeur itinéraire Amérique ma ne ko non parce que Ablaye Wade vient de nommer il y a deux semaines te du ma bàyyi Sénégal ngir Amérique président sama mbokk sëriñ sépp ceeb lañ lay ñaan ak diw ak suukar ak tamaate ak jiw gerte ak engrais ak fajo ak ordonnance ak aji màkka ak umra ak lu ñu gàmmoog lu ñu ziyaara est-ce que mos ngaa jot sama leetar soo koo jot mosoo koo jot ndax man loolu dama koy jënd di ko joxe ah kay réew maa ñuy déglu te boo waxee ñu foog ne log tax man log indiwu ma dialogue ma indi waaw kay kon nag wa maa ubari rësi président xam nga yow lii sa problème am na ba ñuy xale tàngal buñ daan buñ daan macc bu tudd forox neex billaay forox neex la yàq forox neex xale yi loo wax rek forox neex jënd dafa neex buñ koy tàcc am ko duñ bëgg mu jeex bu jeexee ñu bëgg beneen boo fi defuloon dara dañ leen monsieur le président euh, au revoir au revoir moo gën a yomb lii yëpp booy see ñu xar ci suñu tànku bakkan gi nga fii àll bii fii lii nga fii def ñi la fi jiitu buñ ko defoon doo ko fi fekk kon leneen nga fii def yow defal nga ba defal ñi ñëwagul defal nga cinq génération ci kanam mais man daal alaaji ibrahima sama mag ju baax ja wàll yu waxam gannaaw lay def ba mu laajee ñu ne ko Macky dernier délai am Sénégal mooy vingt cinq de février deux mille deux mille vingt quatre mu ne nii nii nii nii teen xool xaw ma nag fu mu doon xool fa yàgg mu ne déedéet date boobu ngeen wax du boobu fekk de waaye bu weesoo dana fekk ba tey baakee fi nekk président Macky man duma ma comme du ma la gis du ma la déey fii laa lay déey gis nga li defar réew mi mooy njëf yi ñaar rek la euh, maanaam euh, benn kii inclusive inclusive nag ñaar rekk mooy tax mu inclusive d'une part Macky Sall d'une autre part Sonko ñu wate Macky gagné ñu continuer jërëjëf sëriñ bi maa ngi jéggalu parce que dafa am ku